ma wax la waay. ah Ousmane maa ngi lay nuyu bu a baax. <laughs> Ah, yow moom gannaaw mooy yàgg man xam nga lan laay seetaan lu nekk nii su ma duggee YouTube. Mm-hmm. ah mooy li mu doon def ak ñoom saa neex loolu dafa maa neex. Mm-hmm. ndeysaan waay waaw. Mm-hmm. Eh, Mbassa Mbassa moom ah, sama xarit sama conseil. Mm. waaw ki nga xam ne su déggee si man tëll rek daf may woo. buur buur géwél moom rek. Mané ak nak Mansour. Hmm. ku Mansur, ngo mansour Mansour Mansur Mansour Sall Mansour borom tey di nuyu Këjëb. Këjëb sama xarit bi. ak ak isa do doo nuyu Issa. ak isa isa sama xarit la ak ñom pap ah ñom ñep sama xarit lañ waaw keroog nak hmm. waaw di nuyu yéen ñep waaw. mbay buri mbay ya buri buri mbay. non non ah keroog bi ma fi jugé nak waaw la buri bi ma dañ maa liggéey waaleeg. ak waaw euh. journaux dañu liggéey. Mm. billaay wallaay talaay journaux dañu maa liggéey. c'est vrai Mbaye keroog xamee ma la de Mbaye. mënu ma laa téye fenn Mbaye. non naa la ndox. waaw Mbaye naa la. waaw Mbaye naa la. parce que yow Yves xam nga kañ laa xam ne. man dañ maa liggéey. mais Mbaye parce que man soo ma waxoon soo ma waxoon fii sax. Euh. man damay doon <laughs> mais yow Yves nga ñëw ko si man ne ma may yaa ngi yaa ngi ëppal. kuy ma di nuyu nag Baye Ndiaye ak ñoom ah. Eh, Aziz Ndiaye waaw Aziz eh? nuyu sama xarit bi. Eh? waaye kan bi kan. Waly Seck Amady Badiane si ah maa leen nuyu. waa kii du Mbaye de déedéet dañ maa liggéeyoon ah, dañ nuyu Maxu Subatel Maxu ma yee Maxu. nuyu Maxu mu xoolal mu sonn si affaire kaa bi kaa bi waaw hmm? kaa bi xew <laughs> waaw man am na lu ma rëcc de non non c'est que c'est que kaa bi kaa bi garaawul quoi wuy ma xoolal toogal garaawul mooy garaawul wuy ma eh? voilà Mbaye sax Mbaye si Mbaye sa bureau bi rek émission la émission lëmm la Mbaye oui ma Mbaye si jox fi ba suba Mbaye eh, Mbaye si hmm. <laughs> Mbaye si hmm. euh, dëgg ko naan xoolal xam naa la émission bi waa Pikine mu si gën a xër waay waa Pikine waa Parcelles non surtout kër Mbaye si ndeysaan Mbaye si yaay mu woon a ma sànq dañoo bëgg yaay mbay si émission bi non mbay si ak Fallou ak BSM mhm. mhm. ah. <laughs> <laughs> ah. léegi lu ma la wax rek nga wax dégg ne ku fi xool lu lay jaaxal ku fi xool lu lay jaaxal yaa nangoo xool lu la jaaxal yaa nangoo xool lu waaye boo sëggee boo sëggee nangoo gis lu la jaaxal nangoo gis lu la jaaxal doo mës a jombi a jombi may mbay waaw man mi mbay tuub naa tuub na ma sonn nag na ma ndox da nga maamoon rek da nga maamoon <laughs> mais maamu di wul <laughs> yow est ce que jékki liggéey la woon jékki na ma liggéey jékki na la liggéey parce que daa yor dara daa yor ko diwlu ko waaw ah waaw wuy ma ma yéen ñëpp. coupé téléphone bi bay oui ma coupé téléphone bi. oui ma jaja commercial jaja nuyu naa la. alors def ko silencieux. jaja jaja nuyu naa la maa ngi jégalu de. bay ah. bay xoola bay nga lii nii. lii rek émission la xoola lii rek émission la. du dara kaa bi kaa bi xoola du kaa. du kaa déedéet. kaa bi kaa la de. gis nañ fi bu ne mbay. Eh, kaa bi ay fi ay. mbay bu ne jaar na mbay. Ah. déglul commencé ti nga su ma nee déglu leen déglu. waaw déglu naa mbay da nga mbay da nga eh, mamoon <laughs> keroog. nga mam. yaa ngi mamaat mi ngi lay yaa ngi bañ. nag léegi nag mbay mbay nga mu def loolu. am naa ma ne mu ñëwaat ne ngir yàlla Ibrahima du ma bàyyi wax xam xam nga. alors alors c'est ça ah, guddi gi c'est ça guddi gi dañuy kafooree la parce que ak lu ci mën am rek mooy euh, Sénégal ben bop la hmm, Té gis nañ fi bu ne te lu ne jaar na fi. Hein, gis nañ fi lu ne te lu jaar na fi on a tout vu mhm. on a tout entendu et on a tout géré donc il y a pas de souci C'est ça guddi alors ñu dalal suñu gan nak. Mbay hmm, Mbaye du cas loolu jàll nañ